yaa maalikal mulki yaa man jàll al xawaadir irham jamii al waraa yaa haadiyal radaa yaa maalikal mulki yaa man jàll al xawaadir irham jamii al waraa mbokki jullit yi mbokki bi yi nga xam ne ñoo ngi bay xel seen seen YouTube bi nga xam ne mooy seen télévision Touba Vision ci jamono ju ci nekk ak saa su ci nekk ñooy baaxoo di ñaanal ak ziar ko ñaanal mbooleem njabootu borom Touba gépp waaye tamit di ko ñaanal mbooleem koo xam ne yaa nga fa nga nekk te dara taxul nga ne fa lu dul wuutu yàlla ci inna nazal na zikra wa inna lahu la xaafidun muy mbooleem kër diine yëpp ak fu ñu fi mën a nekk Touba Vision ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar waaye di ziar bu baax mbokk taalibe yi bu ngeen gisee tamit ci jotaay bi comme niñ leen ko waxee Touba Vision di ko àndak ak yéen ci jamono ju ci nekk ak saa su ci nekk mooy ci waajtaayu ubbiteem Masaalikul Jinaan gi nga xam ne ñoo ngi fi nekk fi ay fan ci ba ñu baaxoo ko ànd ak yéen muy sunuy plateau yoo xam ne ñi ngi koy ànd ak yéen ci jamono ju ci nekk ak saa su ci nekk tey nag ñu dikkaat yéen ci beneen tomb ci beneen anam waaye balaa loolu tamit dañuy nuyu ak sunu technicien yi nga xam ne mooy technicien Touba Vision yi ñi nga xam ne ñoo ñuy dimbale ci jamono ju ci nekk ba nit ñi di ñu mën a gis waaye di ñu mën a dégg waaye tamit di mën a jariñu jamono ju ci nekk ak saa su ci nekk di ñuy nuyu rek ku ci mel ne directeur bi nga xam ne moo ci nekk muy Serigne Khadim Seck di jàmbaar lool di koo xam ne ku ba ku liggéey bi ñor la doon koo xam ne tamit yaatal diine ku lu ko ñor la yaatal liggéeyu Serigne bi tamit lu ko ñor la ba jamono ju ci nekk tamit mu ngi bàyyi yitteem bàyyi xelam ci lépp ngir liggéeyu Serigne bi ñoŋ nga gis ne fii ñu nekk tey di Masaalikul naan lu ëpp ñaari semaine mi ngi nii ñu di ko waajal ci indi matériel ak lu demee noonu ba nga gis ne tamit lu une semaine lu jiitu Serigne Serigne Mountakha di fi ñëw Touba Vision ñoom fekk nañu jiitu si sëriñ bi fi nga xam ne mooy Masalikul Jinaan nga gis tamit taxawaay bu rëy bi nga xam ne ñu ngi koy am nga gis écran yi nga xam ne ñu ngi koy takk ci jamono ju ci nekk ak saa su ci nekk ak bi nga xam ne ñu ngi koy takk lépp di seen sacrifice boo xam ne ñoo ngi koy defal seen bopp waaye tamit jaayante boo xam ne ñu ngi koy def waaye tamit bàyyi seen bopp xel xam ne ay taalibe te yaatal liggéeyu Sëriñ bi moo leen di war jamono ju ci nekk loolee tamit euh, dañ leen ciy sant bu baax di leen ci gërëm waaye di sant bu baax caméraman yi nga xam ne ñoo ñuy jàppale jamono ju ci nekk ba ñuy mën a gis fépp ci àdduna ku ci mel ne Serigne Alsane Sané waaye Baye Mbaye Baye mbeen mi nga xam ne tamit moom mi ngi ci caméra bi ak ku ci mel ne Serigne bay sekk féete fële ca Touba waaye Serigne Abdoulaye Sey tamit duñ ko fàtte fële ca Touba Italie moom it mu fay def liggéey bu am solo kon équipe bu Touba Vision ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci kaw loolu tamit ni ñu ko doon waxee jamono ju ci nekk ak saa su ci nekk mooy li nga xam ne mooy plateau yi nga xam ne ñu ngi koy amal. di ci waxtaanee li nga xam ne mooy njàngaleem sëriñ bi waaye tey buñ seetloo ñoo ngi ci bisub altine ñaar fukki fan ak ñett ci weeru muharram di 23 septembre fii nga xam ne mooy masalik di première journée bi nga xam ne moom lañ wéyal programme bi ginnaaw bi nga xamee ne Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké eh, ñi dugg si ne fii nga xam ne mooy Ndakaaru waaye ñëw ba seet si liggéey bi nga xam ne mooy Masalikul Jinaan tey nag di bis boo xam ne spécialiste la ndax dañ koo tuddee jëmm ju màgg jëmm ju tedd ki nga xam ne liggéey bépp ci moom la tàmbale woon muy Seydina Cheikh Saliou Mbacké mi nga xam ne moo nekkoon juróomeelu xalifa borom Touba waaye doon njabootu borom Touba kiñ ci mujjee gis moom mi nga xam ne moom lañ dajale jaal yi bii nga xam ne mooy bisu tey bi di altine ñaar fukki fan ak ñett ci weeru septembre fii ci Masalikul Jinaan boobee nag gis nañ jamono ji ci nekk ñi ngi koy dundal ci njàngum alxuraan ak njàngu xasida waaye di ci waxtaanee Touba Vision tamit war a indi participation ci jëmm ju tedd jooju nga xam ne moom lañ tuddee bis bi muy Serigne Salihu yooyu gis ne ñi ngi toog ak euh, sunu nattaango sunu jëwrin sunu euh, kilifa muy Serigne Maam Thierno Diop xidma waaye tamit Serigne Maam Thierno Diop bu Touba Vision ndax miin nañ ko ci jotaay Touba Vision liggéeyu Touba Vision jamono ju ci nekk moom lañ fa fas yéenee séqanteeg jotaay bi tey te jotaay bi nag thème bi war a doon ñu war a waxtaanee Serigne Saliou mi nga xam ne moom lañ tuddee bis bi moom tamit lañ dara jaalee bis bi Serigne Saliou mi nga xam ne tamit liggéeyu Massalikul Jinaan ci moom la tàmbalee ci xalaatam la tàmbalee waaye lépp lépp tamit ci ay naalam la tàmbalee woon kon ngir njëkkanteeg waxtu bi rek incha allah dañuy jox Serigne maam Thierno mu nuyoo ci eh, émission bi kon Serigne Mame Thierno asalaamaaleykum wa rahmatullah aouzu billahi min asheytan irajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin sayidina wa maulana muhammad ibni abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi rabbi israh li sadri wa yassir li ya amri wahlul xuqdatam min lisaani yafqahu qawli wajjaal kalaami rachidan wa mursidan wa fikrati nawur wa xalbi arshida sëñ Ahmad Dam maa ngi lay fay am nuyoo di la ziyaara di ziyaara mboolem ñi nga xam ni ngi ñuy bàyyi xel ak fu ñu mën a nekk di am mbégte mu rëy ci bis bu tedd bii nga xam ne moom la ñu dara jaale a radiyallahu anhu wa ardahu di ñaan yàlla mboolem lu fi sotti ci aw yiw yàlla na yàlla ko yàlla jotale ca yool te dara darajey sëñ Tuubaa jërëjëf Euh, jërëjëf euh, Serigne Mame Thierno ci nuyoo bu matale boobu waaye ci nuyoo bu tedd boobu waaye tamit duñ def dara lu dul tamit sant sunu partenaires yi nga xam ne ñoo ngi ànd ak ñoom fu ñu mën di tollu ci liggéey bi ci mel ne C3S muy euh, kii compagnie Serigne Seck Sénégal di koo xam ne tamit ku ku ñu xam ci réew mi la di jàmbaar lool ci wàllum arminium ak lu ni mel waaye tamit ñu ànd ceeg waa clinique sëriñ Abdoul Ahad Mbacké nekk fële ca Touba waaye. tamit ñu ànd ceeg Touba euh, Darou Kosso communication muy TDKC 313 ñoom it ñu doon ñu xarale di dox ci wàllum njaay lépp lu jëm ci téléphone ak accessoire ak lépp loo xam ne moo aju ci téléphone kon ñooñu ñooy sunu partenaires yi nga xam ne ànd nañoo ñoom ci liggéey bi kon Serigne Mame Thierno ginnaaw nuyoo bu mat boobu euh, tey buñ bëggoon a xam jëmmi Serigne Saliou nga bëgg ñu ko wax ci lu gàtt ana mooy Serigne Saliou. waaw jërëjëf sëñ Ahmad Dame. Euh, gaa yu baax yi bu ñu leen di xamle dafa am nu leen boroom xam-xam yi di baaxoo di xamle te ci biir xamle boobu faw nga xam le nit ki ay mbokkam ñooy ñan ndax ay askan yu baax lu am solo la ci doomu aadama doonul li tax gën nag waaye faw lu am solo la ci nit ndax alxuraan da cee bari lum ciy tudd euh, ci biir alxuraan dañuy gis muy wax fu bare bari di tudd ay waajur yu baax bokk na ci wax ji sayyiduna xudar waxoon ni wa kaana abawhuma saalihan gam waxoon gone yooyee te seen baay bu baax rek ko waraloon bokk na ci it bi na maryam bi sayyiduna isa ganee àdduna dañoo ñëw ni ko yaa maryamu la xadd jiti shay'an fariyan yaa uxta haaruna maa kaana abookim ra asaw in kon nga dégg ci ni liñ ko bëgg a wax rek mooy yow say mbokk nit ñu baax lañu woon te alxuraan yi dellu waxaat ni wal baladu tayibu yaxruju nabaatuhu bi izni rabbi walladi xabusa laa yaxruju illaa nakira kon diñ ci xame ni askan yu baax lu am solo la waaye doonul lii tax a gën ndax sunu borom dafay tudd ay famille ci alxuraan yoo xam ne da leen a tànn yooyu mooy li muy junju naan inna allaha astafa aadama wa nooan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alaalamin ay famille lay junj foofu yum tànn bi muy tànn yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa tànn famille bu ñuy wax famille Ismaayla ci biir famille Ismaayla ci la tànn famille bu ñuy wax famille Ibrahima ci biir famille Ibrahima ci la tànn famille bu ñuy wax famille Ismaayla ci biir famille Ismaayla ci la tànn famille bu ñuy wax Kinaanata ci biir famille Kinaanata ci la tànn famille bu ñuy wax Xuraysin ci biir famille Xuraysin ci la tànn famille bu ñuy wax Banu Haasim ci biir Banu Haasim ci la tànn Moustapha alayhi salaatu wasalaam kon da ngay gis ni ay askan yu baax lu am solo la moo tax waa ju baax juy waaji ñëw ci kaw suuf su nekk yàlla dina ko jaarale ci askan yi gën a rafet ndax tabiaa doomu aadama dafa bindoo noo xam ni nit dafa mën a xeebaate ci wàllu ab judd moo tax yàlla setal gaa ñu baax ñi ci mboolem li leen mën a xeebe askan yu baax yooyu nag nga xam ne ku baax ku ne fa nga bokk foofee fa la sëriñ Saalihu radiyallahu anhu wa ardaahu yàlla foofee la ko boole sëriñ Saalihu Cheikh Ahmadou Bamba mooy waajuram sëñ Touba sëñ Touba nag mooy sunu sëriñ bu baax bii rek kenn dootu ko présenté ci àddina mooy nit ñi moom sëñ Touba kenn du leen ko wax ndax ñëpp ko xam boroom jumaa ji waaye yemul foofu sëriñ Saalihu ku ñuy wax. soxna faati jaxate mooy waajuram soxna faati jaxate it dafa bokk ci askanu mbaakol as muy askan woo xam ni ñu ñu xam lañ ci naka jekk ci dunde seenu ñaq ak sàmm diine ji ak jàngale alxuraan ak yu ni mel wax nañ ni sëriñ Modou Assa ma nga xam ni moo jur soxna faati muy waajuram daf daa def fu muy tukki day yóbbaale dundu boppam lu mel ni ñebbe ak sànqal ak yu ni mel di ko jëfandikoo ngir du dunde lu dul aw ñaqam soxna Fatou Jaxate moomu it soxna Jeng Sill ma nga xam ni mooy waajuram soxna Jeng Sill moomu la sëñ Modou Assa àndal keroog bi nga xamee ne dem na ba dund bi jeex soxna Jeng Sill dafa leb dolli ci sëñ Modou Assa Jaxate keroog bi mu ñamee ci euh, laax boobu da koo daal waccu ni ko xanaa dañ cee dolli lu ci bokk mu ne ko waaw dafa xawoon a néew ma leb dollu ci xoolal ki dundelu lew ba àgg ci bu ñamee loo xam ni maanaam du aw ñaqam da koy xam loolu yaakaar naa sàmm fa la mën a yem ma waaye ko nit ku sàmm la woon rek ci ci gàttal moom sëñ Modou Asta sëñ Modou Asta moomu nag yàlla da ko defaloon tawféex njabootam gépp góor ak jigéen sëñ Touba la leen joxoon sëñ Hamsatu Jaxate sëñ Mbàkke Jaxate sëñ Alsaan soxna Faati ak soxna Mariama ak soxna Aysatu soxna Mariama ay waajuru sëñ Abdou Lahat ak sëriñ Sohayb ñoo ko soxna Faati waajuru sëriñ Saliou ñoo bokk ndey ak soxna Jëng Sill ma jur soxna Faati moom mii nag di waajuru sëñ Hamsa toog euh, sëñ Mbàkke ak soxna Aysatu ak soxna Mariama mook sëñ Mañaw Sill mi ñëpp xam ñoo bokk lépp kon sëñ Mañaw ñoom askanu ci la ku ne xam na leen ñoom itam ci ragal yàlla ak jàngale alxuraan ak tasaare diine ji ak dunde seenu ñaq loolu loolu loolu lañ mas a nekk kon bu ma doon wax Serigne Saliou ci askanam askan yu baax yooyu rek la ko yàlla boole moom nag waajuramu jigéen woowu boroom xam-xam la woon dafa jàng alxuraan ba man ko mokkal ko nit nit ñi di mokkale alxuraan mokkal gu rafet soxna Faati noonu la mokkale woon alxuraan liy firndeel ni boroom xam-xam la soxna Mati Jaxate waajuru sëriñ mustafaa moom Serigne Saliou nee na soxna Faatee ko jàngal Masaalikul Jinaan Mati waajuru Serigne Moustapha moom Serigne Saliou nee na soxna Faati moo ko jàngal Masaalikul Jinaan Masaalikul Jinaan Masaalikul Jinaan kon ku ku ku doonoon boroom xam-xam mënu koo jàngale donte téere Serigne Touba la waaye. ku ku ku doonul borom xam mën da jàngale masaalik ku sàmm la woon it ku farlu woon la ku ku doon liggéeyal sëñ Tuubaa la moom soxna Faati ba yàlla defal ko ci kër sëñ Tuubaa mu am fa sëñ Abdul Baaxi moom soxna Faati Jaxate am soxna Taahiratu sëñ Abdul Xuddoos moom soxna Faati Jaxate waaye ñoom ñett ñëpp dañoo teel a jiitu dañoo dañoo gàtt fan jiitu ba yàlla dogal loolu mu am ci sax moom soxna Faati lu ko metti lool ndax ku ne xam na ak njaboot ni mu soree ci nit rawatina sëñ Touba nga xam ne ñépp moo bëggoon di ko liggéeyal ba am fa ay njaboot sëñ Touba loolu ñëpp ko bëgg waaye rawatina ñoom ñi ko yàlla tawféexale kon su su fekkee ni njaboot googu dañoo teel a jiitu faaw dina ci am ci yëfi nit lu ko ci maanaam lu ko ci metti di ko sëñ bi yëgee nee nañ da ko woo mu ñëw mu ni ko noppil te muñ te xam ni yàlla dina la may koo xam ni dina gudd fan dina fi yàgg dina ma jariñal jàmm xam sëñ sëñ Tuubaa moo seere yàggug sëñ Saaliw ci kaw suuf ak gudd fanam ci kaw suuf ak jariñ jàmm loolu sëñ Tuubaa ko seere ci sëriñ Saaliw eh, jërëjëf eh, sëriñ Maam Thierno eh, damay dikkaat foofu tuuti muy mel ne sëriñ Saaliw kon lu jiitu ak ñëwam sëriñ bi moo seede woon ñett yooyu ci ci moom Euh, ngir euh, loolu ñu mën a indil ci ñett yooyu nga xam ne sëriñ bi euh, sukkandiku woon na ba sedeel ko sëriñ Saliou waxuma sax gudd fan gi waxuma sax waaye nga dikkal ma tuuti ci njariñ bi bindee fi njariñ bindee fi ndax sëriñ bi doon na wax ne bu dul woon ak njariñ bindee fi du fanaan ci adduna génn guddi sëriñ bi seedeel sëriñ Saliou ne kuy njariñ bindee fi la ana njariñ bindee fi kooku noo ci mën a dikkee sëñ Ahmad Dam Euh, sëñ Touba li indi woon yonent bi ci kaw suuf rek moo ko fi indi woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam dani ma li utammima makaarimal axlaaq li ko fi indi mooy mottali jikko ju rafet sëñ Touba nag mission bi ko indi woon ci kaw suuf mooy defar doomu aadama li ma naan développement mouridisme li ci jiitu mooy ay nit ñu defaru ay nit ñu defaru ñoo ci jiitu nit ñi sëñ Touba li ko gën a ñor du ay tabax yu rafet du ay dëkk yu avancé du ay dëkk yu am ay gratte du loolu lépp nit ñu defaroo ko gën a ñor nit ñu defaroo ndax nit ñi la bëggoon ñu defaru ba mën a jëm ci yàlla loolu nag ci la doon ci la doon bay waaram moom sëñ bu mag bi bi mu ñëwee yar di tërbiya di tarxiya di tasfiya yàlla dogal mu am gàllankoor ci loolu ndax moom digganteem ak colonialiste yi ba gis nga da daan nit day ñëw ni ko dama bëggoon day ñëw jébbalu ci moom mu ni ko demal ca diw defar naa ko comme li mu wax demal ca Balla defar naa ko loolu wax na ko ay nit ba tàyyi mu mel ni nag jëmmi tërbiya goo gii mu daan tërbiya moom sëñ bu mag bi da ko rafaatale sëriñ Saliou te jëriñ mbindeef yi mi ngi li li gën a nekk jëriñ doomu aadama ci kaw suuf mooy doomu aadama nga defal ko li ñuy wax taxliya ak taxliya teqale ko jikko yu ñaaw yëpp taqale ko jikko yu rafet yëpp loolu mooy liggéeyu sëñ Touba te loolu sëriñ Saliou la ko rafaatale li lay xamal ne nag sëñ bi da ko cee def jagle mooy sëriñ bi ginnaaw bu mu xam xamloo ba noppi rek cël daal di jublu sëñ Saliou dafa teel a samp daara di yare yarin woo xam ne lim daan wax mooy yoon wii ma leen teg kenn gënuma koo xam dama wóor ni mooy yoon wa te seen diggante ak sëñ Tuubaa càllala gi gàtt na ndax maa fi dox yariñ woowu nag dafa am ñoo xam ni ci ñeenti ñeenti ñeenti ñeenti xeet xeeti méthode la ko daan yare ji la daan yare moom Serigne Saliou ñeenti xeeti yarin bi ci jëkk mooy jàng alxuraan boo ko mënee mokkal mokkal ko ñaareel ba jàng xam-xam ba xam say farata gën ngaa néew ñetteel ba jàng xasida ñeenteel ba liggéey ca kër gi mbaa liggéey ca tool ya ñeent yii la boole woon léegi nag ci biir defin woowu nag daa am ñoo xam ni da leen di yar ci li ñuy wax bil xaal ak bil maqaal xeetu tarbiya dafa am ñaari xeetu yarin ñaari xeet la dañuy wax ni sax boroom xam-xam yi dañ naan xaal moo ëpp doole maqaal mooy nit ki nga ànd ak moom ci saw melokaan nga xam ne ci li ngay jëf ci lay gis di ci roy ba mën a am ak defaru ku ne xam na ne jëmmi sëriñ Saliou amoon na xaal boo xam ni ku taxaw ak moom ba maanaam diir bu gàtt da ngay yëg ak defaru ci sa jëmmi bopp waaye bil maqaal mooy nit ki nga koy digal muy sukkandiku ci jëf yi nga koy digal maanaam di ci mën a jaar ba mën a defaru léegi liggéey boobu nag nga xam ni mooy tarbiya gi dañu woon moo ko indi ci kaw suuf moom sëñ Saliou lu ko waay mën a waxal ak lu mu mën a doon ab yar mooy li indi sëriñ Saliou ci kaw suuf te def na ci résultat boo xam ne néew na ku ko def ci wàllu ab yar waxuma la muy génne ay nit ñu mu yar waaye dafa génnewaat ay daaray daara yoo xam ni dañuy wéy di yare ak i boroomi xam-xam yoo xam ni xam-xam yu sell lañu am boole kook di jaamu yàlla ak di yare na sëriñ Saliou daan yare ci biir yarin woowu nag xàmmewu ci woon kiñ naan doomi soxna la ak ku dul doomi soxna ndax daare ji am nañu ci bind kaamil te seeni baay fari ñu ijji am na ko ci bind kaamil xam ne daa ñëw baayam ñëw sëñ bi jox ko kaamil bi sëñ jox ko kaamil bi mu ni ko dëkk ba ma ne de téere bi kenn mënu ko cee jàng nga xam ne dana ko mu téyewaat kaamil bi lim daa wax kon ci ni euh, sallahu yéen ak Moustapha Sam moom laa yemale loolu dafa nekkoon loo xam ni mooy doxalinam wi mu amoon ci ci yarin wi nga xam ne boo nekkee ci daara ji dangay tàmbalee ci jàngal xuraan soo ko mënee mokkal mokkal ko biir mokkal googu it xàjjalewuñ ci doomi soxna yi ak ñi dul doomi soxna ñëpp la ñuy fexe ku ci mën a mokkal alxuraan nga mokkal alxuraan bu loolu weesoo ñu teg ci njàngum xasida te di ko mokkal ak di ko yëkkati ndax yëkkati xasida dafa bokk ci yi gën a gaaw a defar doomu aadama looloo waraloon Serigne Saliou boole ko ci lim daa tërbiya mu xam ni mbir mu ne la ci ëpp solo mooy tànn ci ab dog tànn ci it luñ cay jëfandikoo ginnaaw xasida yi dafa bari mu dal di jël fan lu tolloog fanweeri xasida ak nangam. lu ëpp fukki junni bayit yoo xam ne nee na képp ku ko mokkal mel nga ni mokkal nga xasida yëpp ndax nee gis na ni xasida yu ci ëpp dañ ko daan jàng ci jamonoy sëñ bi njaareem njës boog ma waaxi boog mu xaddimaat wakaana xaqan midaadi ak lat ak wajjahtu wajhi liman takrimuhu baana karam na ak yeneeni xasida yoo xam man man na fanweeri xasida ak nangam ñu ëpp ci ñu nekkoon ci daara ji mokkal nañ sasoowu Eh, njàngale mu yéeme muy tarbiya gi nga xam ne Serigne Saliou daana ko def te ci ñetti anam la ko daan def wala ñeenti anam te mooy jàngale alquran waaye jàngale xam-xam waaye tamit tarbiya nit ki waaye tamit eh, eh, def ci nit ki ak nangoo liggéey ndax muy amal bi man ni ko waxee muy ku nekkutoon ca tool tamit yaa ngi ci kër gi yaa ngi ci kër gi di liggéey kon day mel ne mission Serigne Saliou ci kaw ndax dégg naa nga ne ku teeloon na samp daara la. te Serigne Saliou lu jiitu uh, borom Touba di fi bàyyi ko ci Zahir booba bindagut kaamil moom kon day mel ne jamono ji muy samp daara kon boo ci mënee wax ci gàttaay ndax kon day mel ne moom ku teeloon a responsabilité moom Serigne yi waaw moom maanaam bi muy samp daara daanaka ñaar fukki at ak tuuti lay war a am maanaam ñaar fukki ak ci la Serigne Saliou samp maanaam bi muy am daara ñaar fukki at ak tuuti la. te tarbiya gi nii ñu ko xamee ci mujjantal gi nga xam ne ay tracteur lañ mujj di baye walla ay nag ñuy gis ñuy baye noonu njëkkee wutoon loolu sëñ bi ay gopp lañ daa baye te moom ci boppam moo daan xëy tobbil sas dongo yi tobbi aw sasu boppam ñuy bay muy bay le buñ demee ba war a noppi mu jiitu leen ca daara ja bind lañ war a jàng nga xam ne dañuy boole liggéey ak jàng loolu sëñ bee ko daan defal boppam kenn daw ko defal moom sëñ Saliou xam ne ñu bari dañuy foog ni nii bi gi meloon nii ci mujjantalam ñuy bàyyi ay tracteur di bàyyee nag loolu naka jekk noonu la meloon fekk lu ko jiitu ay gopp la la tàmbalee woon nga xam ne jafe-jafe yu metti ci la nekkoon sëñ bi daana toog ba du am dépense sëñ Saliou toog na ba tàyyi du am dépense sëñ Saliou nga xam ni tartar yu métti ci la nekkoon ni ko sëñ Touba mujj def nii ko fayee moo tax bi àdduna bi ko àdduna wutsee moom gisul àdduna bi ndax naka jekk dafa xam rek moom moom loolu sëñ Bachir wax ne wax ci sëñ bu mag bi rek ne xooli xarab baani rek la ñuy wax ci moom mooy dañ koo xam rek mu yàlla maanaam mës dara yi àdduna sëñ Saliou mësuñoo gis kenn ku àdduna wut soo nii mu ko wutsee nii mbooloo mu bari doy loola yaakaar la ay milliards di la dikkal ngay kaalawoo ay jàlla ay ay jàlla bi di toog ci mbaar mu tàng loolu mosuñu koo gis moom ni mu dëddoo àdduna moom beneen mbir la moom waaye li ko ñoroon mooy liggéeyal sëñ tubaay ci defar ay doomu aadama tàggat ay nit moo tax mu daan wax ne daara yi li ñuy bari bari bu ci kenn defaroo coono bépp kenn defaroo ci jaral na ma ko lu ne la ko jaraloon xasida yi ñuy jàng ci daara ji xasida yi ñuy kuréel nii moo daan toog ci biir kuréel gi bés kaset bi sëñ Alhaaji Siise ñu dégg ñu gone yi déglu ko mu bàyyi daal di wax leen nga xam ne li ñuy wax jéem a déglu daaj bi nii ak di ko répété sëñ bi ci boppam moo ko daan defal dongo yi ci boppam moo ko daan ah, defal jërëjëf Thierno du ma la dog waaye diggante Serigne Saliou xaside yi xam naa danaa ci ñëw mu mu gën a mu gën a mu gën a yaatoo ci ci ci ci ci wàllu woowu waaye dama am tomb boo xam ne dama bëggoo gudd ñu romb ko nëgëni ndax day mel ne jamono ji ñu toll Euh, booy gis euh, ndaw ñi nga xam ne ñi ngi am 30 ans wala euh, lu ko ëpp te mën a gunoo samp dara te wax nga ne Serigne Saliou à l'âge de vingt ans wala yu teg tuuti ci la samp daara ba noppi yor responsabilité boo xam ne waajuram gisatu ko ay magam la fi nekkal ak liggéey boobu tamit mu doon dox ci ma ay magam ak na liggéey ba ban ban jàngat nga ci mën a defal ci diggante boobu. waaw xam nga Serigne Touba moo jàngaleel njàngaleen woo xam ne mooy teel a ñeme responsabilité. mooy nit ki ndax saxaaba yi bul fàtte lislaam amu ci kenn koo xam ni mas naa bi muy def njàmbaaram gi muy def am na am na ñeent fukki at amu ci kenn ndax saxaaba yi ridwanullahi alayhim ñu ci bari ci ñoom ñu ci ëpp yonent bee leen magoon alayhi salaatu wasalaam am na ci ñoo xam ne njàmbaar gu réy gi leen di tudd ñaar fukki at lañ ko def am ñoo xam ne ñaar fukki at ak juróom lañ am am ñoo xam ne fanweeri at lañ am naka noonu ñu àndoon ak sëñ Tuubaa it njàmbaar gu rëy gi ñu leen tudd yëpp lu ci bëri ci at yu néew lañ ko def sëñ bu mag bi bi muy yónni maam Thierno Ibrahima Faty fële ca bureau Ndar di ko yónni ci gouverneur Faidherbe 1895 maam Thierno mi ngi am ñaar fukki ak juróom-ñeent 29 ans loolu it dafay tekki ni jëmmi sëñ Tuubaa bi muy bi muy ñëw bi muy wootee yoonu murit fanweeri at la am fanweeri at jëmmi Sëñ Tuubaa bi muy yoonu mu fanweeri at la ci gàttal nga xam ne lépp ëppul fanweeri ci gàttal bi responsabilité yi mu doon samp yi maam Cheikh Anta bi mu koy jox Daaru Salaam ñaar fukki at la am maam Cheikh Anta bi mu koy jox Daaru Salaam di ko booleeg juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent quatre-vingt-dix-neuf personnes ñaar fukki at la am tànk yooyu nga xam ne moom la sëñ bu mag bi jaaroon nag. mboole mboolem ñu àndoon ak moom jaar fa foofee fa la Serigne Saliou jaaroon moo tax mu teel a sampu daara ndax moom ginnaaw bu mu loo ba xam li mu war a xam géeju ci fànni xam-xam yu bari yu bokkut yoo xam ni daana xam-xam yu bari la Serigne Saliou géeju woon yu bokkut waaye ñaari xeeti xam-xam a ngi yoo xam amu ci nawle benn bi mooy juxraaf mooy géographie ku gis 45000 hectares yii Xelkom ni mu ko rëdde mu nekk 15 daara yoo xam ni benn boo ci dem mel nga ni dugg nga ca moroom ja daara ju ne ak morom ja doon 7 kilomètres mu mu tërale ko noo xam ni rëdd jëmmi ba ci biir daara ji sax maanaam plan wu tërbiya day feeñ ci ni mu tërale daara yi nga xam ne néeg yi dafa jàkkaarloo. boo nekkee ci néeg bi da séen ñu nekk ca néeg bële ba séenaale ñu nekk ca beneen néeg ba lim ci doon jublu mooy di nga am kersay nekk ci benn néeg di def loo xam ne ñeneen di la seen loolu la doon moo tax mu doon def néeg ñuy jàkkaarloo loolu ci stratégie wu maanaam tërbiya doomu aadama moo taxoon mu doxale noonu waaye xam gu mu xam wàllu suuf da cee feeñ li koy firin li ko li koy gën leeral mooy euh, bari na barab yoo xam ni sëriñ Saalihu ko rëdd te maanaam joxewuñ fa ab plan nga xam ne moo ko rëdd ñu def fa jàkk wala ñu def fa kër nga xam ne kenn joxewu fa ab plan te bañ ko liggéeyee dafa nekk barab bu jaar yoon boo xam ne ku ko gis da nga naan ban architecte moo liggéey lii beneen xam-xam bi nga xam ne amu ci nawle mooy tawxiid wetal yàlla da cee amul nawle daan wax ni maanaam gisul ku ko doy ci jàngale ko kon da nga yëg ni moom li ñuy xam-xamu kese nii rek dem na ba weesu ko ba ba nga xam ni li mu jot a xam ci xam-xam boobu ak la cay dolli ko waxtu ne dem na ba ba jàppul ni am na kenn ku ko doy ci jàngale xam-xam boobu te mooy tawxiid di wéetal yàlla kon xeetu xam-xam yëpp bi mu ci gëstoo ba nga xam ni géeju na ci dafa daal di nag tàmbali di yare yar boobu metti lool ñam njëkk àndal ñuy dund tuum ranke gu metti dara amuñu ko yére yuñ sol sax amuñu dañ daan ngemb ngemb ngemb ngemb lañ daan def daara ji ñam njëkk àndal sëñ Saliou dañ daan ngemb biñ demee ba mu yàgg ñuy ñuy bàyyi ay gopp nga xam ne li ma la wax léegi day day tobbi aw sas tobbil leen sas buñ bàyyee tuuti mu ànd ak ñoom di bay buñ bàyyee tuuti mu bàyyi leen fa dellu ca kër ga bind alliwa ya buñ ñëwee mu saleen bind ñu jàng xam ne du nangu liggéey bi raw raw leen waaye du nangu njàng bi raw leen ndax kon tërbiya gi day manqué waaw tërbiya dafa boole liggéey ak jàng léggéey ak jàng waaye njàngum xasida mi mënu cee ñàkk ndax day day day da bokk ci lii tërbiye nit ci wàllu ruux xam-xam bi mënu cee ñàkk ndax nit boo ko jàngalee te yaroo ko fu dem day defe ne ab buur la war a doon loolu sëñ bi naan xam-xam bu bari bu àndutakub yar day ñoddi nit jëmee ci ay lor ak i coono fa kasratul ilmi bi xayri adabi jaalibatun ilal aza wa taab kon xam gu mu xamoon ni xam-xamu kese amul solo moo tax dañ ko daan boole ak euh, xam jàng alxuraan ba mën ko mokkal mokkal ko waaye liggéey ci kër gi wala nga liggéey ci tool ya ndax xam na nit xam-xam kese te nanguwoo sonn nanguwoo liggéey amul njariñ waaye dalay jàngal liggéey ak jaamu yàlla am na ñoo xam ne liggéey bii ñu man ci ba koy def ci daara ji lañ ko jànge daara Sëriñ Saliou ci lañ ko jànge ndax dala daan jox responsabilité wu nga yor aw nga da gis ñoo xam ne aw nag dañ koy yor ba ñoom nag woowu buñ ko sañ nañ ko dem nañ ba nga xam ni maanaam seen responsabilité wu jaay nag woo bay jëndaat waneen sax ci seen loxo la nekk nga xam ne li ñuy doon doon gone da leen bàyyee responsabilité boobu nga xam ne bi ñu nekk ci daara ji lañ teel a yor ay responsabilité yoo xam ni tax na bu ñu génnee mënatuñoo dajale responsabilité yu ëpp yooyu ndax bàyyeegum lu ñu war bàyyee mu bokk yi ci métatu yarinam mooy day fexe ba daara joo dem dafa am ñaar day am ñaar fukki jëwrin ak juróom wala ñaar fukki jëwrin ak juróom-ñett. jërëjëf jëwrin yooyu. loolu loolu danaa ci dikkaat euh, bu baax a baax. muy e, e, e, xam naa danaa bëgg ñu dugg xuus xel kom carrément comme ni nga ko doon waxee léegi ci ni nga xamee ne Serigne Saliou noonu la euh, sancee xelkom ci euh, géeju gum géeju woon tamit ci xam-xamu euh, li nga xam ne mooy algéographie di géographie waaye tamit ni nga xam ne noonu la géeju woon ci xam-xamu li nga xam ne mooy tawxid ci kaw loolu waaye tamit di jaajëfal mbokk taalibe yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel mbooleem fu ñu mën di nekk ci adduna moo xam ñu ñuy seetaan moo xam ñu taxaw tamit di ñu déglu ñëpp waaye ci kaw loolu sëñ maam Thierno xelkom ndax buñ gisee xel daa doon àll boo xam ne day mel ne comme Touba la kenn moomu ko woon àll la boo xam ne day mel ne am nañu ko moomoon sax waaye jëfandikoo gi ko sëñ Saliou doon jëfandikoo day mel ne amutoon kon day mel ne bërëb bi bërëb bu doon xaar Serigne Saliou la doon bërëb boo xam ne tamit gis nañ ne waxuma la di fa jàngale képp waaye Serigne bi sax dem na di fa tabbi ay tool tool yi di ci saxalaat ñeneen ñoo xam ne nekkuñu ci daara ji ngir di mën a liggéey ci lool loolu kon di mel ne li ñuy wax dëgg dëgg ñaqal Sëñ Tuubaa tamit day xewaat ci biir euh, daara jooj di xel kom ginnaaw bi nga xamee ne jàng am na fa tërbiya am na fa li nga xam ne tamit mooy xam-xam am na fa kon ana loo mën a euh, dikk jàngat ci ak euh, tamit méthode jàngale si seen yi waaw xam xel kom ci daara yi mujj la bokk xel kom li ñu bari xamut buñ xel kom moo barkeel ba nga xam ne buñ ko tuddee dañuy yaakaar ni mooy daara ji njëkk ci daara yi sëñ Saliou yi xel kom fukki daara la ak juróom suuf sa yaakaar naa 88 lañ ko ko jox wala 88 la Serigne Saliou gor suuf sa Baye Fall yi bokk nañ ci ñam fa njëkk a yóbbu nga xam ne ay bukkeek lu ne fa nekkoon ci àll bi wax maanaam xeetu rab yu bare bare bari ñoo nekkoon ci gott bi diir bu yàgg la fa gaay def gor àll bi mu mu sanc ko lotise ko def ko fukki daara ak juróom waaye bu ñu doon xayma daara yi mu am nga xam ni bokkut ak xelkom mën na lu jege fanweeri daara ak lu topp tuuti ndax yeneen daara yi nga xam ni bokkut ak xelkom got lagan ndoka njurul am na yeneen daara yu bare bari yoo xam ne daanaka jege na fanweeri daara yoo xam ni ay daara yi boppam la woon yoo xam ni la doon lam doon liggéey xel xelkom moom la fa doon liggéey li tax may insisté bu baax ci yarinu sëñ Saliou mooy sëñ Saliou nit warul daanaka nit jërul mu koy waxal leneen lu dul ab yar moo ko fi indi ci la jeexal dundam gépp te ba mu jógee dafa yàggul 2007 la fi jógee gone yi gën a ndaw sax fekk nañ ko fa daanaka tërbiyaam dundam gépp lim daan wax àggoon na ci di wax ni man dey ak ak tarbiya mooy li ma fi indi daal di wax ne li ñuy di wax xalifa général de ni mu demee man da mel ni wagoo wu doon daw maanaam terrain bu doon daw maanaam saxaar gu doon daw wagoo wuñ programme yi lonk ci xam ne moom maanaam mbiram xalaat ne day doon xalifa général moom bokku ci moom liggéeyam daal ak tarbiya la sëñ Saliou mooy jëmm joo xam ni mës sa tabax ci kaw suuf lu ñuy woowee ak kër mësu koo tabax maanaam benn sanc bu nit mës a gis ñu naan la sëñ Saliou ko tabax ak kër la amul ci kaw suuf këram gii mu dëkk gii mu dëkkoon sëñ Abdou ko tabax boo fa demee yenn kees ya waa kër sëñ Massamba Diop Samb waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall kees gu ne ak ña ko tabax daanaka waaye moom amul lenn lu mu mës a tabax ci kaw suuf lu ñuy wax ak kër goo xam ni dajaa fa yéene dëkk loolu ma a am kon lu mu mës a am ci tërbiye la ko mës a jeexal liggéeyal sëñ Tuubaa ci ab yar am yar ci la mës a def léppam moo tax yar boobu nag mu am ci résultat boo xam ne néew na nga gis ku ko ci am ndax xel xelkom ay kàngam mi boroomi xam-xam yu mag dañoo génne ci daaree xelkom borom xam-xam yu mag a mag yoo xam ne ku leen tudd tey tudd borom xam-xam mën naa cee tudd sëñ Abou Kébé mi taxaw fii léegi rek doon doon def conférence bi sëñ Saliou borom xam-xam mag jóge nañ ci daara yi xel kom te ci maanaam ci résultat wu sëñ Saliou lañ bokk sëriñ xalil moom sëñ Moustapha Afsa ak sëñ Khadim moom sëñ Moustapha Afsa ak sëñ El Hadj Mbacke Khadimul man damay wax ni maanaam Sëriñ Alxaaji rek Sëriñ Alxaaji xaadimul xaddim doy na résultat ci yarub Sëriñ Saliou buñ la laajoon ni la lan mooy résultat wu Sëriñ man mën ngaa wax ni Sëriñ Alxaaji mooy résultat wu Sëriñ Saliou waaye nag biir yarin woowu mu daan yar dafa àndoon ak yërmande yërmande ju mat ndax nit ki ngay yar faw nga ëmbal ko yërmande bu yërmande amut doo ko mën a yar nanga ko war a na nga ko na ko na nga ko bëgg a yare dafa bëggoon ndi dafa bëggoon ñi muy yar dafa bëggoon nit ñi ba mel ni moo leen gën a bëgg sax seen ndey ak seen baay ya leen jur te loolu moo am ba loolu ñi mu doon yar mujj xam ko ci moom nga xam ne mujj na sëñ bi ci boppam moo leen gënal seeni ndey gënal leen seeni baay léegi ci biir yërmande jooju nag ci la mënoon a jaar nag bay mën a yar li mu li mu li mu bëgg a yar ci ñi mu daan ñi mu ñi mu daan yar waaye mu doon ku xamu yar nag ku ko xam xam gi mu xam ab yar mooy lépp luñ ko wax ci daara ji bala mu caa jëfandikoo dara da ko gëstu ba noppi nga xam ne amut leen loo xam ni dinañ dinañ ko ko leeral ci daara ji te demul doxal boppam ba teg ci bëtam doog ca doxal la muy doxal mu doonoon jëmm joo xam ne ku mënoon a waaj waaj bu yàgg la mën nga koo wax mbir ren ba déwén te du ci sàkk pexe dafa dafa mënoon a waaj ab maanaam xaar loo xam ni boo ko ko waxee mën naa toog ren ba déwén te du ci jublu waaye noonu la bëggee woon sëñ Tuubaa moom sëñ Saaliw ndax li firndeel loolu mooy euh, sëñ mu numbe ak Cheikh Ibra Fall bari woon na loolu lu mu leen di tudd te saa bu leen tuddee lu ci ëpp bala moo jeex faw mu tuur ay xeewal lu ci bari sëñ mu numbe ak Cheikh Ibra Fall loolu lim daan tekki rek mooy mas wax benn bis li tax mu leen di faral di tudd mooy bu dee Cheikh Ibra Fall pas-pas ba moo ko yéem ci moom pas-pas ba bu dee sëriñ Manumbe ni mu jàmbaare woon ci liggéeyal sëñ Tuubaa rawat na bi sëñ bi demee ci géej gi dund bi mu daan fàggu di ko jox njabootu sëñ bi bëgg sëñ Tuubaa nag ak fonk gi ak wormal sëñ Tuubaa ak jox ko ab cërëm ba liñ ko doon askane la ni yaay sëñ Tuubaa nee na sëñ Saliou sama doom la waaye mës sa wone ni moom waxtu wu ne day xeeñtu ci wane ni moom da daa bëgg a bokk sëñ Tuubaa te li koy firndeel bari na kuréelu daaru xuddos gi jàngal nañ ko xasida ak mu xaddamaatul am ndaa mu jàng ko ba mu tuur ay xéewal ba yëkkat bi ñu noppee mun sàllaahu na ngeen ma sant la yàlla bu baax ndax li ñuy wax ni moom la ñuy xàmmee ku bokk ci moom dal na ma tey ndax sëñ bi daa waxoon ni képp ku ñuy jàng sama xasida yi ba nga jooy na nga yëg ni ci man nga bokk keroog ba mu tuuree ay xéewal loolu la njëkk a wax na ngeen ma sant la yàlla man sëñ fàllu Sonia bu nee na ma sëñ Saalihu nee na ko sëñ Fallou sëñ Sonia bu yàlla fi yàgg te wér nee na ma sëñ Saalihu nee na ko dafa am benn bis da ko doon nettali benn xissa xissa ba mooy dani ko sëñ sëñ bu mag bi de dafa mas a nekk ci njaareem nee na ñu julli fajar nee na ñu nodd fajar ba noddaat noddug ñaareel mu yéex a agsi nee na biñ jullee bi ñu agsee ñu liqaam ñu julli ba sëlmal nee na mu nu sëriñ Masamba xanaa yéex gee julli si gi jaaxal na leen sëriñ Masamba ni ko boo ñu ci dimbalee ñu jël nee na mu ni sëriñ Masamba ndaxam mos dama demoon fu sori ci sama borom xam nga lu ma fa yóbbu woon képp ku aju ci man waaye sama borom jox na ma ko waaye daf ma caa tegal ni xam nga lu ñuy xàmmee ku ci yow a nen loolu la wax sëñ loolu la ko wax na mooy bu ñuy jàng sa xasida képp ku mu ku mu neex ci moom ba mu jooy ne ko wóor ni ci yow la bokk nee na mu ni sëñ sëñ Fallou nee na mu ni ma na ma sant la yàlla ndax loolu mu wax moom la ñuy xàmmee ku bokk ci moom da dal na ma nga xam ne fàtt na ni doomi Sëñ Tuubaa la waaye day xeeñtu ngir bokk ci Sëñ Tuubaa euh, jërëjëf euh, Serigne Maam Thierno ci yu am solo yooyu nga xam ne indi nga ko euh, muy benn ci daara yi nga xam ne Serigne Saliou sanc na ko waaye tamit indi ñu ci yarub Serigne Saliou nga ci ay yoon loolu ñu déggee ci li nga xam ne Serigne Saliou daana ko wax ci jamono ju nekk mooy tey am Saliou la waaye jamono gi ñu ci jamono loolu du ma la bàyyeegul waaye damaa bëgg ñu dikkaat ak Serigne Saliou ak xaside yi waaye ci kaw loolu faaw ma dugal sun euh, Serigne Ousseynou Diouf ndax euh, yegg si na léegi moom ci jotaay bi bu ko defee mu ubbil ñu jotaay bi. ci xasida ci diggante eh, ci eh, diggante bu gàtt luy toll juróomi minute bu ko defee ñu daal di wéyale ci Serigne Saliou ak xasida yi waaye tamit noonu la ñuy ñaanalee Serigne Cheikh Saliou Mbacke mu yàgg fi lool te ànd ko wér noonu lañ koy ñaanalee mboolem taalibe bi Serigne tubaa yëpp kon bu ko defee Serigne Ousseynou eh, nga ginnaaw boo nuyoo rek nga bégal ñu ci xasida yi araf yi. barke borom Touba barke xasida yi maa ngi siyaar ñëpp di ndokkeel ñëpp ci bis bi nga xam ne. sëñ Saliou moom sëñ Saliou ñëpp la ñëpp ko bokk yàlla na yàlla taas ci barkeem barkeem xasida yi xam naa dañuy barkeeloo lu gàtt rek ndax xam naa waxtu yi daa xaw a gàtt barke borom Tuubaa bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa basru sallallahu taala alayhi wa sallama bi haza ziyarata wa taqabalha wa farrih biha axyaarako amin ya rabbal alamin ashabul jannatum fiha xaalidun ilayka ya xayral bariyati salaam kafaytul إليك يا خير البرية السلام قديمك الذي كفيت الملام صلى عليك أبدا مع السلام في الآل والأصحاب ربنا سلام غزت مقاما دون كل مقام يا نور كل غابر سام وخام أنت الذي أخرجنا من السلام بك النور من عباك بالكلام بشرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك ضعين ذا تمام anta nabi wa rasul wal umam bikan qiyaad saalihiin bi zimam laka ladaa rabbil waraa laka bi yaa sayyidi azna ixtiraam jaadalana baaqin taalaan xayrul anaam nawaytu sukruhu alayka kulluam وكل سعر والكتاب لدقام نويت سكره عليك بقلام وخير آيات جامي الكلام هديتي قص كرما بالانسرام يا خائدا لي من إلهك المرام تفت ربي ساهرا بس النظام لك وقبل عبوت بعظام هديتي إلى جماد ثانيه من المعرم القطوف الدانية ملكني الماء العدايا كافية كل أسن من خير عين كافية فرعت بقدم لا ثانية لها من القدم ليست فانية يسر سيدي عروفي الداية إلى جناني إليها ساية هديتي إلى النبي سافية بسارة لا خورا دافئ إن خلامي بنبيك هادي إلى جنان من لا أبادي خدمة خير العالمين جالي قاليني فذر من قالي أحمدنا رتبة جرلاني تحلي معبك وتخفي خالي لأحمد المختار قد القافية هابية الدنام ليت العافية درجة المختار ليت القافية إسرايات للعباد السافية ودي لربي وله للخاسية ألا أن أهدي صدور الناس ناجيت فيك لجماد ثانية من المحرم المنير الدانية واجلب لها القير من جهادي الست واكفى عن الآفات هدني عني شيطان يا جليل ومسكني وكلما أحول يا الله يا عفيز يا ذا الأمر يا فائق القلق مع بالقارئ نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة الأبد وكسات وما أخرى ففي غما عن اذرف الرزايا واجرم عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء زمن وجملة الإخوان من أقارب في الدين أو في الدين والأجانب فليكن عذنا ودأبا يا ثمد تولني ولا تكلني لأدنى وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلة لك وليهب حسن الختام عندك ولتصرف الصلاة للصحابة أنا لي قبل الإجابة ولتصرف الصلاة للصحابة أنا لي قبل الإجابة رب إنك قلت وقولك الحق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 Eh, jërëjëf eh, Serigne Ousseynou Diouf ci njàng mu pëseefu mi waaye tamit ci njàng mu am solo mi nga xam ne yaa na ko doon yëkkatil muy xasaidu Seexul Xadim yi nga xam ne eh, yaa ngi ñu ko doon baaxee waaye ci kaw lool rek ni ma ko doon waxee xam naa kon Serigne Ousseynou bu ko defee tamit xam naa ci ne tuuti rek tamit dinañ ànd ak Serigne Ibrahima Sarr xasida moom it bu ko defee moom it mu ñëw ñu àndaat ak moom ci xasida waaye balaa boobu tamit ñu dikkaat ak Serigne maam ci. Eh, njàngat gi nga xam ne mën nga ñu koo defal waaye ci kaw loolu damay damay sant ak gërëm say mbokki taalibe yoo xam ne mooy waa fondation Sopp Serigne Saliou di ay ndaw ñoo xam ne seen yitte yëpp mooy liggéeyal Serigne Saliou waaye tamit boole seen bopp ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéey Serigne Saliou ci jamono ju ci nekk ak saa ci nekk liggéey boobu nga xam ne Serigne Saliou mi ngi ko doon doxal ci jamono ju ci nekk ak saa su ci nekk ana loo ñu mën a indil ab jàngat ci diggante Serigne Saliou ak xasida yi ndax day mel ne moom ci boppam sax jànkatu xasida la woon ndax daanañ toog ci kanamam daan wax ab air muy air cosaan goo xam ne sëñ ma Samba ko doon jàng wala kenn bu buñ demee ba juum ca moom Serigne Saliou daana doon bokk ci ñi nga xam ne daanañ ko gàgganti wala yu demee noonu ana ñu mën a wax ci diggante Serigne Saliou ak euh, ci xasida yi. waaw Serigne Saliou day ku teel koo xam ni xasida maanaam da cee maanaam mën nañ ni da cee da cee da li mu daan wax rek waajuram woowu ma a waxoon soxna Faati da daan tari xasida ak bismillaahi fi ni ak daara yàllaahu xam nga xasida gi sëñ bi nee nañu ci lu ci lu nettali boo xam ni bari na fu ñu koy jële foo xam ni jàpp nañu lu wér la mooy lim wax ni faggul naa képp ku mokkal xasida ak bismillaahi fi ni bismillaahi fi ak daara yàllaahu safi baqaa bihi lii fii ka yàllaahu képp ku ko mokkal nee na faggul naa la aw fasu naaru góor ca jamono yooyee faggul naa la ci it àjjana ak ñetti dërëmi ngurdu nee na xasida gi da ko daa dégg ci soxna faat yi mu koy tari moo tax daanaka ca laataa muy dugg ci daara ji mokkal na xasida gi ndax yàgg gum yàgg a dégg soxna Faati Jaxate di ko tari loolu it li moo la ci firnde gi ma la ci jox rek mooy wan la ni sëñ Saliou kon ku teel a sóobu la ci xasida yi sëñ bu mag bi li mu bëggoon a defar ci doomu aadama te yàlla mën lawuku ko ndax loolu mu waxoon ne wa walla alladi hiiqa jismi han ziyaaratihi li gàllankooroon yaramam ba mënta siyaara ji Mustafa alayhi salaatu wasalaam te mooy colonialiste loolu moo ko téye mooy mooy mooy noon yi mu àndaloon ci fanweeraat ak nangam ba tax li mu bëggoon a yar ci nit ñi mënu ko yàlla ne ko nag defal naa la sa mbind moom yi wuutu la ci lolo moo tax nga gis mu naan xasida yu bari dinaan ku ko jàng yàlla dina la yar wala dina la defar lu mel ni xasida ak jaalibatu rawatina mu naan wa bi kitaabati rabbi rabbi kulla mutaali an li wajhi rabbi képp ku koy jàng ngir jëmmi yàlla yàlla dina la yar te it joxoon na ko it sëñ Balla Faali ni ko ku ma yabalati ci yow na ko jox xasida gi mu koy jàng ndax na ma bëggoon a bëggoon a ànd nit ba mu mel na ma bëgg amatuma jot gi te xasida gi moo ma ci wut dégg naa lu bari sëñ alxaaji naan lu wutu sëñ Tuubaa du lu ndaw moo tax xasida jaalibatul maraaxib xasida la goo xam ni danay dégg ci boroom xam-xam bu mag muy wax ni ku am gone gu yàqu wala koo bëgg mu defaru nee na war ngaa farlu ci muy jàng xasida ak jaalibatu jaalibatul maraaxib xasida yi kon defar goog gi lekk yàlla wutale ci moom moo tax sëñ Saliou nag xam gu mu xam sëñ Tuubaa xam gu mu xam métatu yarinu sëñ bi xam gu mu xam li sëñ bi bëggoon moom mu ñëw dondu sëñ Tuubaa nekk ca loolu yi sëñ bi nekkoon moo tax mu sañee jël xasida yooyu boole ko ci li muy yare moom nga xam ne daa bokk ci aw yarinam moo tax mu tànn xasida yii ma la wax muy fanweeri xasida ak nangam nga xam ne xasida gune rek génn xasida gune jazbul xulóob jazbul xulóob li àllaamil xuyóob li àllaamil xuyóob loolu tekk tekk na luy wone luy defar xolub doomu aadama jësbul xulub li allaamil xuyub te jës bu ci la bokk ci xasida yooyu ak am amdah ak mawaahibun naafi te xasida yooyu yëpp benn bu ci waay jëloon saxoo ko rek maanaa di nga am li nga bëgg ndax dégg naa ci sëñ bas sëñ basiru mbàkke xelkom yàlla na ko suñu borom doole dëgëral mu ni jële na ci ku ñuy wax baayam bu ñuy wax sëñ moodu gelongal sëñ Modou Gelongal ba bàyyi la ci sëñ Bass Abdou Karim sëñ Bass Khelcom mu ni ko wilaya gu la mu wax ni wilaya gu la waay mën a jaay saxal ci jës boog ma yi boog mu xaddama waaw li mu jubloo wax ci gàttal mooy maanaam boo ci saxee foo waaye di àgg ci li nga bëgg ci yàlla di nga ko am xasida nag xëy na ni jamono yàqoo ak ni ñu koy jàngalee gi sama classe nga xam da yorub jukki jotaay bu ne nga toog ci bu ñu bu ñu waxee waxtaanu àdduna nga dugg ci buñ ne làmb ja nga wax ci buñ ne football ba nga wax ci buñ ne commercant ya nga wax ci buñ ne euh, politique ba nga wax ci jékki-jékki daal tàmbalee jàngaat tuuti ay bayit daal wax loolu ku koy def waxuma la xasida gi dina defar waaye boo muy tuut sax torox ci ngay jëm yow ndax danga mel ni dangaa jël waxi sëñ Tuubaa di ko boole ak leneen xasida dafay lu sell dañ koy wutal barab utal ko waxtu boole ceeg pakk bu laab laab ci say yére laab ci sa jëmm mooy nga jàpp boo waree jàpp nga sangu boo waree sangu nga jublu penk boo xeeñoo lu mel ni parfum ànd akuk teewlu mooy tax xasida gi leeri xasida gi di mën a tëbb ci yow sëñ bi nag xasida yooyu mu dajale woon dafa xam ni xasida yooyu ngir mu gaaw a defar doomu aadama faw ak mokkal la ci am damay wax toujours jàngati yëkkati yii muy ñii jàng kuréel nañ bàyyi xel ni njàngum yëkkati ci xasida mooy li gën a gaaw a defar doomu aadama ku koy jàng te defar woo na nga xam ne jàngagoo xasida njàngum yëkkati mooy li gën a gaaw a defar nit bu nit doon durus ay at kiy jàng yëkkatee koy gën a gaaw a defaru bu dee njàng mi ànd na ci pas-pas bu sell ak jàng rek te yàlla tax balaa yàgg nga gis mu defaru defaru koo xam ne dalay yow sax dalay jaaxal moo tax jàngkati xasida yi mag ñi boo leen gisee ñoom seen njàng mépp ci xaal lañ ko jànge ndax yëg guñ doon yëg sëñ Touba ak gis guñ gis sëñ bi nga xam moom nag lañ ni jàkk dara amuñ ci soxla lu dul moom nga xam ne jàng ci wéet jàngal sëñ bi sax moo day dem ba moo leen di gënal di jàng ci barab boo xam ne ay mbooloo dañ fay nekk ndax ñoom boroom njàng mi ñuy jàngal njàng mi yëg nañ ni waxtu wu ne mi ngeek ñoom te sëñ bi dafa am lu mu dafa xëy bis jox sëriñ sàmba fukki dërëm ak ñaar ni ko ma sàmba dama bëggoon borom njàng mi daa bëgg ñu koy jàngal njàng mi waxtu fajar yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ci jublu mu jox ko fukki dërëm ak ñaar ne ko ma bëggoon nga fàggul jàngkat yi mbubbi sedd ndax waxtu fajar woowu day sedd sëñ Masamba ni ko dama bëggoon xaalis bi des bi te ma fàgg ko sëñ bi ne ko xam naa ko xam naa ni mën nga ko fàggu waaye dama bëggoon buñ leen di fay fay ma loolu li sëñ Mayib la ci boppam sëñ Mayib moo gënoon a nekk tu tànk ci fukk ñu njëkk jàngal sëñ Tuubaa sëñ Mayib ba ci gënoon a nekk tu tànk gannaaw bi moom mu fi mujj def na ci ay audio yoo xam ni ca lañ toxale lu bari ca kuréel gu njëkk googee nee na sëñ Masamba fàggu mbubb ya mu yam ca sëkk nee na fajar gañ njëkk jàng sëñ bi wax ni laa ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñu tàmbalee jàng lillahi rabbi alladi xad jaadali bi man kulli xadiman liman taqdimuhu huda ba àgg ci allahu rabbun jalilun malikun ahadun barrun latifun karimun lam yasal samada nee na sëñ bi mel na ku ànd ak xaal nee na laaj Cheikh Issa Dienne biteelu sikki bi mu yoroon nee na kenn ku ne sëñ Mayib nee na mu def nii sa mbubb sotti la ko ba nga yëg ni tooy na xëpp nee na mu bàyyi nee na bu mu noppee ba butéel bi jeex mu jox ko Cheikh Issa nee na di ming di leen wër nee na ci biir loolu sax mi ngi laaj seex Issa naan ko ndax kon Issa butéelu sikki dina toll nii nee na Cheikh Issa naan ko dama daan def butéelu bu ma am sotti ko ci ba mu toll nii nee na ba ñu noppee mu jox leen cere joo xam ni yàpp ganaar la am cere joo xam ne dugub bi suuna la ak yàpp ganaar nekk ca kaw nee na bañ demee bay xewlu mu ne leen dikk leen dikk leen moo wax leen ci ci xewal googu yi la leen xamutoon nee na ba ñëwee mu ni xóot-xóot boobu nekk ci digg li de yonent bi moo ci barkeelu ba noppi wax ma ni ma joxal sama gaañi ñu xewalu ci loolu danañ ci xamee màggu njàngum xasida mi nee na nee na ba ñu noppee sañ Mayib nee na ñu cere ja ba damm te yaxi ganaar ga séddoo ko nee na dikk ni ko Mbàkke ñun daal dañ laa bëggoon a sant ndax yow mi ñu defar lii amuñu luñ la mën a fayee lu dul di la sant mu ne ana nu ngeen may sant ñu ne ko xanaa di sax di jàng sa xasida yi mu ne xasida yooyu de laa laa leen bëggoon a leeral yéen ñi koy jàng ak man mi ko wax ak ñi koy déglu nu ñu demee daane leen man xam ngeen ñanaa njanaaw njanaaw ñu ni ko waaw mu ne ndax xam ngeen laafiya ñu ni ko waaw mu ne ndax xam ngeen dunq ya ñu ne ko waaw mu ne man mi ko wax maay maay njanaaw li yéen ñi koy jàng yéenee laaf foofu dinaa fi taxaw tuuti laa fi Sëñ Tuubaa nag kenn waru koo fowe kenn wër def ku mu neex dangay romb sax léegi ay ay dëj yoo xam ni ña fa ne maanaa xasida yi dañoo waroon a dund ba faatu duñ ko dégg ndax xasida ndëndul buur la kenn waru koo tëggal kenn képp kuy def barab boo romb dem taxaw fa jàng xasida na la wóor ni da ko layoog Sëñ Tuubaa ëllëg boo faatu jàngkatu kuréel yi war nañoo am fulla ci seen bopp barab bu ñuy jàng ñu seetaan ko xoolaat ko bu baax ñii rajas war nañoo bàyyi xel fi ñuy jàng bu baax ñii jàng jàngum aw war nañoo bàyyi xel fi ñuy jàng xasida yi xasida yi boroom dajee sonn de te képp ku koy fooye di ko def ci barab boo xam ni yë yëllewuñ ko da nga ko layoog Sëñ Tuubaa boo liggéey ah. nee na mu ni leen yéen ñi koy jàng yéenee laaf yi léegi ñi koy déglu ñooy dunq yi sax leen ci loolu fu ñu jëm ànd te ngeen seere ni foo leen koy waxee maa ngi seen biir donte ci ñag bala ku ñëw fekk ma jërëjëf eh, Serigne Mame na sax leen ci loolu fu ñu jëm ànd te na leen leer ne lii ngeen di wax fu ngeen koy waxee ku ñëw fekk ma ca biir jotaay ba kon day mel ne eh, eh, dara darajee jàng da moom buñ ko doon wax fii ba suba dana duñ ci mën a jug waaye ni nga ko waxee rek ndax Serigne Saliou yitteem gépp mooy yar ak defare te borom Tuubaa moo wax ne hudan wa nuurun wa ridan wa baraka fa jaani fi mati faqri mudrika kon day mel ne ak leer la goo xam ne day jubalaate waaye tamit day moo nekk ci ci biir xasida yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadir irham jamii al waraa yaa haadiyal radaa yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadir irham jamii al waraa